dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyandoo yéen i kaay di Rewmi L'Observateur Vox Populi L'As Enquête Le Quotidien Sud Quotidien Libération Direct News Walfadjri 24 heures mbooleem yéen i kaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo ñu xëy di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun journal bi di Rewmi Quotidien nee na Sénégal jamono ji ma ngi si dëcc ndax démb accident bu métte métti moo am ci yoonu Louga wi ab bus boo xam ne moo daal di daano lu toll si ñaar fukk ak ñett ñoo xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan am lu toll si juróom fukk yoo xam ne ñoo am ay gaañu gaañoo journal bi nee na ci yoonu Louga wi fa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 ñeent ñoo ci ñàkk seen bakkan jamono ji nag gars yi ñoo ngi jëmee identifier ñi faatu ci accident bi fan la ñu dëkk ak nan la ñu tudd waaye nag lu toll ci fukk ñett rek la ñu identifier maanaam fukk ak ñett la ñu xamaguna maanaam ñooy ñan ak la ñu dëkk yéen kaay gi nee na état bu ñoom nee nañu maanaam ñooy jël en charge ñi nga xam ne ñoo blessé ci accident bi yéen kaay gi de la turbine xëy duñu xibaar naan ñu bus bi nga xam ne maanaam moo def accident bus boobee dafa surchargé ba pare tamit ki nga xam ne mooy chauffeur bi li mu doon daw bëri woon na lool ndax nee nañu loolee moo waral accident bi maanaam surcharge dafa yeboon ñoo xam ne bus bi dafa feesoon ba ëpp ba pare tamit bi doon daw ay xel yoo xam ne maara détaillé journal bi nee na bus bi lu toll si juróom-ñaar fukk ak juróom benn ñoo ci nekkoon maanaam 76 personnes te na carte grise bi bi ñu ko xoolee lu toll ci 60 personnes ñoo waroon a dugg ci bus bi yéen kaay gi di réew mi ko di jee nee na en tout réew mi di Sénégal lu jëm ci mbirum accident yi ma melu tuleeg ndax juróom benn weer ci ginnaaw ñoo xam ne ñàkkoon nañu seen bakkan ci accident ñu jëloon ay mesures gouvernement bi jëloon ay mesures waaye nag mesures yi sax mesure la koo xam ne moom mu yàgg mu daal di perte contrôle moom mi nga xam ne mooy chauffeur bi ginnaaw bi mu perte contrôle la bus bi nag jayeex-jayeexi ba dal ci ak garab yéen kaay gi di Source A am na ñenn sax ñoo xam ne ñoo ngi wax ne ñi faatu ci accident bi maanaam lu toll ci ñaar fukk ak juróom benn journal bi nee ñi nga xam ne ñooy sàndarma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 dañoo war a jël au sérieux inondation yi moom député bi nee na ñaari ñetti yoon bu ko tawee maanaam askanu Touba dëmm ci ndox mi di am ay jafe-jafe journal bii de Le Quotidien yor yora nee na askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Touba jamono ji sonn nañu ba mara détaillé te journal bi nee na léegi tey màggalug Touba gi ñëw yéen kaay gi di Direct News xëy duñu xibaar naan ñu port bu Ndayane liggéey yi jamono ji commencé nañu ko fi nga xam ne fi la ñuy def port bi ñi nga xam ne ñoo fa dëkkoon indemniser nañ leen journal mi nga xam ne moom la ñu dénk wàllum port bi daat nay tekk carrière bu bees bu mucc ayib la ci Afrique dina suqali bu baax a baax ci a wane lu jëm ci wàllum hub commercial ci Afrique de l'Ouest journal bi nee na port Ndayane boobe nag vision président Macky Sall la yéen kay gi di Sud Quotidien xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu ca réewum Niger nee na foofee ab coup d'état moo fa am Mohamed Bazoum mi nga xam ne mooy njiitu réew ma la ñu coup d'état yéen kay gi di 24 heures nee na di Mohamed Bassouma ñi nga xam ne ñooy garde pénitentiaire yi ñoo ko teg loxo waa CEDEAO waa Union africaine ñoom nag ñoo ngi ñaawlu bu baax a li nga xam ne moo xew Niger ñi nga xam ne ñooy waa états ñoom nag ñoo ngi sàkku ñu daal di Mohamed Bassouma mi nga xam ne mooy njiitu réewum Niger yéen kaay gi de la point xëy xibaar naan ñu Guédiawaye football club ñoo ngi fay tudd ab scandale financier football club moo encaissé xaalis bi ba pare bañ a joxe xaalis bi loole moo tax Lat Diop mi nga xam ne mooy directeur général bu LONASE nekk tamit président club Guédiawaye football club moo daal di porte plainte porte plainte ki nga xam ne mooy Ibou Dieng ci lu jëm ci wàllum abus de confiance escroquerie daat nañu koy teg loxo mandat nañu ko dépôt yéenekaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy supporters yu Guédiawaye football club ñoom tim dàq ñu benn yoon ngir nag daal di porte plainte ki nag lu jëm ci wàllum complicité de détournement